Euh, déjà moom moo njëkk ben ah. bref. <laughs> voilà mi ngi mi ngi noonu. c'est que gars yi ñoo nangu ñu leen di mbaraan euh, aussi. non man ma boo ñëwee rek ma ne la alors c'est quoi qu'est-ce que tu veux. de l'argent eh ben moi je ne donne pas l'argent je suis beau je suis intelligent mais je ne donne pas l'argent <laughs> alors euh, Aliou Sow mu mel ni macha allah tey actualité dafa riche. Ah. comme ni nga ko waxee sànq. Euh, war nañoo mën a njëkk a waxtaanee ci wàllum immigration bi alu Sow. Mhm. parce que vraiment instant yi ñëpp am nañu ñu leen metti Aliou Sow. te li ci gën a doy waa moom mooy comme ni ma ko waxee woon démb. ndaw yi ñu ngi dee mais teewul tey la ñu gën a mën a dem te loolu mooy problème bi lan mooy problème bi lan moo tax xay na ndaw ñi amatuñu espoir ci seen réew lan moo tax euh, l'État jël ay bëtam gëmmu ko ci jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ndaw yi nekk di dund jamono ji Aliou Sow. Euh, à des solution euh, immédiates mm-hmm. mais certainement état mënul gën bëtam parce que dofuñu quand même mm-hmm. na dañu xaw a tële certainement parce que euh, nguur balaa nga kaa xam nga téye ko euh, ñi ko daan wax nekk dans position bi ñu ñëwee gis nañu dafa am ce qu'on appelle les réalités du pouvoir du loo bëgg a def rek nga def ko du loo bëgg a am rek nga am ko surtout on est un pays bi nga xam ne on a quand même une soixantaine d'années d'indépendance mais euh, at yooyu yëpp ñu indépendant et eh ben euh, amaana les trois quarts les trois quarts des disons allez la, la première quarantaine d'indépendance en termes d'années eh ben on n'a pas euh, véritablement euh, euh bien travaillé mm-hmm. euh, pourquoi je dis ça parce que comme je le dis souvent on aurait pu anticiper sur beaucoup de choses sachant que euh, moment bi ñuy am indépendance le Sénégal tournait autour de euh, cinq millions à peu près au même niveau que la Mauritanie mhm. ci wàllum tey jii nii ci wàllum euh, démographie maanaam nombre d'habitants il faisait moins de cinq millions d'habitants euh, sachant que ni ñoom xamoon nañ ni am ñun suñu pays dañu am benn culture sociologiquement ñun dañuy faral di am ay doom ay doom dañuy multiplier wu parce que suñu culture ak suñu religion moo ñu euh, féetalee euh, moo ñu yóbbu noonu ci état d'esprit boobu ba nga xam ne euh, surtout que ay planning familial moment boobu amul woon trop trop trop donc ak suñu culture ak suñu gëm-gëm donc dañuy dañuy dañu naroon multiplier wu te gis naa ni moment boobu amoon na ay démographe quand yu fi nekkoon ay spécialistes mm. yoo xam ne ci wàllum démocratie ak même sociologie xamoon nañu réew mi dafa waroon avancer te dañu waroon kon di multiplier wu et période boobu je ne pense pas que ni euh, j'ai bien travaillé euh, parce que tout simplement bu ñu ko defoon dina feeñ ci population maanaam ñu ne léegi population yi sénégalais kenn mënu leen euh, changer état d'esprit surtout que moment boobu sax xel yi demul woon foofu mais mun nañ au moins xam ne fii ak dix ans. Euh, dinañ jógee ci 5 millions dans les années 70 au moins dinañ tourner autour de 10 millions d' mhm. ñu ne léegi moment boobu noonu kon képp koo xam ne euh, yaa ngi am 10 ans léegi euh, dans 15 ans di nga am doom di nga am ñaari doom yow bu dee jigéen nga bu dee góor nga xëy ne yow tam mun nga am ñaari doom en moyenne donc moyenne day doon 4 4 doom. fi ak 10 ans képp koo xam ne am nga 10 ans léegi doon góor walla jigéen bu ñu leen dajalee ku si nekk di nga am 4 ñeenti doom donc. bu ñu defee calcul bi assez rapidement euh, ci année 70 euh, yi après les années 70 mooy moment bi amoon euh, la crise pétrolière des années 73 74 et bien forcément moment boobu di ngeen retrouver wu parce que ñoom xamoon nañ loolu parce que ay mag la ñu woon ay adulte la ñu woon téye woon nguur amoon benn niveau ci xam-xam xamu waroon nañ xam ne loolu dina nekk donc dinañ multiplier wu au moins par deux ci année 70 yi. bien alors donc te ku multiplier par deux mooy euh, danga nga war a liggéey da nga war a actif danga nga war a productif te donc euh, te par rapport ak loolu xam nañ ni aussi Sénégal ñun dañu am ay soxla ay priorité par rapport ak lekkin bi par rapport ak naan bi par rapport ak colin bi par rapport ak même même suñu. dem beeg dikk bi ak yooyu. confort bi mais lan moo tax kon état amul notion euh, li naan notion d' anticipation lan moo tax ñoom du ñu anticiper ci xëy na besoin wu askan wi. moi je dis que ni euh, loolu loolu loolu nañ ko loolu xam xam nañ ko xam dañ koy xam parce que dañ doon jàng école amoon nañ niveau xëy na nag du majorité population bi. Mhm. parce que euh, euh, borom xam yi bare barewuñu woon parce que on venait d'être indépendant donc ñu ngi doon commencer di defar réew mi di am ay kilifa yu amoon xam-xam doon liggéey ak tubaab yi ñëw teew mais bi ñu téye nguur gi peut-être que seen oisiveté jóguñu woon comme en Allemagne bi ñu bi bi après après la deuxième guerre mondiale bi ñu xaasee Allemagne état d'esprit bi Allemagne amoon ne ñun il faut ñu defaraat suñu réew parce rasé pratiquement à soixante soixante quinze pour cent. léegi ñu ne ñoom léegi il faut que ñu jóg mu metti woon trop man maa ngi fàttaliku sama sama sama maamu jabar daf daf ma doon wax ñun ñun moment boobu après dañu doon chaque semaine ku nekk dañ lay distribuer euh, juróom-ñaari juróom-ñaari. Euh, euh, ay ay kii la quoi ay ay ay kiiwu pain la ay mooy mburu yu diis yooyu nga xam ne un kilo lay def tappalap waaw waaw mais dafay diis nag quoi jur ku nekk famille bu nekk dañ la ko doon jox parce que Allemagne ñi ngi ko waroon continuer di di ko war a commencé di tabax nee ñu defoon ñun defaree dëkk bi euh, parce que il fallait ñu tabax ko ndax pratiquement lépp la ñu la ñu la ñu la ñu la ñu la ñu yàqoon mm. léegi moment boobu ñun bi ñu jëlee indépendance xam nañ ni liñ li fi tubaab bi bàyyi woon bariwul te dañu waroon commencé di autonome te léegi ñun ñoo moom ñooy war a defar suñu bopp mais moo boobu noonu euh, euh, waroon nañu xalaat ni soxla nañu ceeb bëgg nañ mm-hmm. ceeb mm-hmm. bëgg nañu mburu bëgg nañ donc dañuy soxla blé am na yoo xam ne dañ ko bëgg bëgg nañu ay tissus yu baax suñu jigéen nañu soxla ay tissus amoon nañ fi ay entreprise xalaat moment boobu créer ko fii ci biir réew mi parce que mm-hmm. am na yu fi commencé nekk sax ay ñoom yaa ngi fàttaliku ay Sotiba ay ay ay yu demee noonu yoo léegi comme dañu soxla ay tailleur ñu commencé di réfléchir ci nan la ñuy defaree ay machine wala ñu jënd ay machine def ay transfert de technologie mais ñooñu nekkoon fii buñ ko xalaatoon dëgg dëgg dëgg dëgg bu s'ils étaient bu ñu leen di tuddee ay tour parce que ay président la ñu ak yu de leen tuddee ay stat ak yu kenn xamul mhm. franchement je pense que ni mois boobu bu fekkoon liggéey nañ liggéey bi ñu waral bi gars di liggéey léegi depuis vingt ans muy Ablaye Wade ak Macky Sall commencé di ko liggéey et je suis que le prochain président et bu fekkee ci opposition la nekk il se il fera mais oui mais dina gën mais il sera beaucoup plus méritant par rapport ak ñi nga xam ne ñoo mujjee woon euh, hmm. dans faagagal c'était Mamadou Dia euh, état d'esprit bi mu amoon euh, ci wàllum transparence ci wàllum façon gérer réew ci wàllum li ñu am dañ koy yaxanal nguur gi waruñu nekk benn espèce ay buur taxaw euh, di yor lépp alal réew mi bàyyi population ñuy galère boobu Mamadou Dia amoon Ousmane Sonko boobu taxawaay la mais mais oui mais pourquoi vous dites Ousmane tout seul parce qu'il y a hmm. d'autres gens qui y ont pensé Amath Dansoko y a pensé d'accord mais man man depuis depuis 2007 officiellement maa ngi koy wax am na ay archives ci ay rajo am ñoo xam ne jàkkaarloog nag ñoom wax ko ci ay xam nga y' beaucoup de gens qui l'ont sauf que à un moment dëkk bi gën na pire y' a boo xam ne amoon na benn vide qui s'appelle Ousmane Sonko et qui s'est montré mais il faut pas que lui qui l'a dit d'autres personnes ah Cheikh Anta mais kenn waxatu ko gis nga ni ko na saxalee pourquoi on ne pas Cheikh Anta Diop ci ay cas jamono ji moom moo nekk ci kaso bi euh, oui mais xam nga waxuñu waxu kan wax waxu ñi ñi doon xalaat xalaat boobu le premier réflexe c'est on se dit que c'est Ousmane Sonko non ce n'est pas forcément vrai léegi léegi lui il est il est extrêmement courageux pour ñëwaat ci euh, wàllum immigration clandestine je pense ku nekk rek war na ci mën sànni mm-hmm. kàddoom ndaxte des fois danga naan ndaw ñi waruñoo dem mais boo xoolee à la base li xew ci réew mi dund bu métti bu cher bi da nga naan au final ñoom ñoo xam ni tax ñuy dem aussi. xam nga li may wax rek ba ba ba léegi tey tant qu'on ne repense pas notre politique de jeunesse ba pare du ñu mën a dem te politique de jeunesse boobu ñu repenser ko mooy lan se mettre au même niveau que les jeunes mmh. c'est-à-dire aujourd'hui qu'est-ce bu ñu leen nee qu'est-ce ñu ne lii lañ bëgg ñu ne leen lii moo fi nekk lii moo fi possible lii lañ am parce que bu fekkee ni yow da ngay dem ak nit te waxoo ko dëgg ne ko lii laa am lii mooy sama possibilité da ngay nax sa bopp nax ko rey ko parce que mën nga ñëw révéloo ko te yow li ngay wax xam nga ne consciemment mënoo ko def mhm. amoo moyen bi amoo loolu loolu nag mooy problème il faut que ñuy wax jeunes yi dëgg état bi lu mu mën mu wax ko mais tamit xaalis bu muy investir mais Macky investir na lu bëri si jeunes yi mais xaalis boobu fan lañ jaar ak nan lañ ko utiliser mhm. kenn xamul parce que da ngay dégg ay milliards ay milliards rek comme li may wax waaye mais gis ko ak fan lañ ko jaarale nan lañ ko dépensé dépense rationnelle xamuñu ko. amul transparence transparence boobu nag la ñu war a lijjanti. Mhm. te li ñuy wax noonu planification pourtant amoon na ministère de la modernisation de l' état. Mhm. ci temps Abdou Diouf temps yooyu rakk ji yore ko loolu moo doon politique de planification mais malheureusement politique de planification yooyu amul mais du am suivi. Mhm. lu ñu def te moo tax tey nit ñi copier nañ ñu léegi nag ñun ñi ñooy jël suñuy fonctionnaire di leen yóbbu dëkk yooyu comme Rwanda ñuy dem foofu ne dañuy jël seen expérience alors fii lañ jaar jël ñun li ñu am dem appliquer ko. ñun ñu ñëw di leen copier. voilà mi ngi noonu Mariam yow it euh, xëy na ñàkku nga am xalaat ci immigration clandestine wala immigration irrégulière bi nga xamante ni jamono ji mi ngi jeexal suñu ay ndaw. waaw awa mi ngi jeexal suñuy ndaw yàgg na jeexal suñuy ndaw te depuis boobu ba tey gis nañ ne xale yi ba tey dañuy xaas xaacu di dem ci géej gi pour ma loolu solution géej gi mu ngi leen di woo ñu mel ni ku ñu xabtal chaque jour nga gis ñu ngi dem ñu ci gis ay jigéen gis ci ay xale mais nañu toog su ma sañoon daal nañu toog xale yi am nañ ci responsabilité parents yi am nañ ci part de responsabilité nguur mhm. gi am na ci part de responsabilité waaye itam yenn ci entreprise yi am nañ ci part de lu tax am na xale yoo xam ne jànguñu awa mais am nañu expérience ay jeunes lañu tey ji su mu ñëwee ci côté li nga xamante moom la ñuy liggéey muy ay téléphone portable ak yu ni xale yi dañ ciy sëgg def ci loo xamante ne tey jii mhm. mun naa ne suñu leen poussé woon may leen tuuti opportunité yu ci mel yenn entreprise yi jàppale leen technologie xale yi foor nañ ci foor boo xamante ni nañ leen ibbi seen i buntu nañ leen may ñu wane seen savoir faire mhm. c' est pas que jànguñu rek waru ñoo nekk ci entreprise yi c' est pas que jànguñu rek waru ñoo nekk ci yenn poste mhm. ñu wane nga xam ne yàlla leen ko may xam ne tooguñu ci banc école may leen xam boo xam ne tey jii mu buñu leen bàyyi woon ñu créer loo xamante ne tey jii fa ñuy dem amaana di ko fa uti ji mhm. eh, fii ci seen réew gën nañ leen fi soxla waaye tamit fii war nañ fi wane li nga xamante ne rek moom looy xam-xam boobu lañ mu nekk seen biir bopp yi xaalis bi ñuy jël di ko fay pour dem am na ñoo xam dañuy fay xaw ma comment ça se mais pour man xaalis boobu man tey jii de suñ ma ko joxoon mun naa ci def loo xam dina ma jural dara ëllëg da ngay xaalaat li nga xamante ne nekk bu dee sa yaay nga bëgg a defal ko defal ngay xaacu wala famille bi kenn tekkiwu ci nga ne man baax wala baax sàq toogal sa biir réew jëlal sa xaalis investir ci dara bul xeeb caaf bi ngay jaay bul xeeb café bi ngay jaay ndax café bi ngay jaay mun na la indil dépense suba mhm. mun na la indil ëllëg lu kawe sa njort loo xamante tey ji amaana fa ngay dem doo ko fa am. Mhm. donc wërsëgu jàmm fu mu toog rek mën na ko fa fekk mhm. incha allah. waa muy euh, téléphone bi am na formation dama koy wax préciser. waaw parce que mu koy wax agence ANAMO euh, pas pour def publicité. jotoon na fi def ay formation xale yi technicien doyul infini benn infine infini rek la def hmm. donc dañoo waroon yokk loolu pour xale yooyu di def hmm. jàng di réparé ay jeunes lañu voilà macha allah kon ñu bàyyi leen xel ndax vraiment ci réew mi lañu bokk alors euh, mu mel ni rek responsabilité yi dañ koo partagé Euh, population bi am nañ ci part de responsabilité parce que pression sociale bi mi ngi fi parents itam ñu ngi koy euh, euh, jiiñ waaye itam état bi tamit ñoom itam am nañ ci wàllu pour rëy rëy sa fi voilà Awa man dama naan ne il faut mettre toujours la personne qu'il faut à la place qu'il faut mënoo ne par exemple da ngay décider pour des jeunes ay ay pas ak i ay maire par exemple di koy di koy di koy mm-hmm. waxtaanee genre euh, su ñuy def des euh, prises de décision nañu ci boole xale yi nañ ci boole ndaw ñi mm-hmm. loolu nag ñu interpellé waale ministère de la jeunesse ak conseil national de la jeunesse ko surtout conseil national de la jeunesse doo ko mës a dégg pa tant dialogue social amul wala dara amul ñu ne conseil euh, de la jeunesse am na conseil national de la jeunesse représenté na te benn nit moo koy représenté voilà mm-hmm. donc mu doon loo xamante ne nañ nañ nañ gën a jo bàyyi jël xale yi ñu ñu ñu ñu boole leen dans les mm-hmm. instances de décision mm-hmm. quand on prend des décision ñu insère ñu ñu boole waale ci xale yi et que également et que day day tax par exemple que xale yi dañuy dañuy am dañuy dañuy rassuré wu ba mm-hmm. dinañ mën a toog dinañ gëm euh, dinañ gën a mën a xam ne transparence am na si dëkk bi am na ci muy lu doy waa Aliou Sow xanaa rek ñu bàyyi la ñu daal di. Euh, voilà mhm. pour daal di boucler boobu boobu les pages. Mhm. waaw waaw c'est c'est ça mais il faut surtout que qu'on réfléchisse sur les solutions euh, concrètes. c'est que c'est vrai que on a dit oui machin dajaloo ak yooyu mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement à ce niveau-là. mais euh, une autre fois dinañ si dellu siwaat pour xam exactement ce qu'il faut faire parce que là on a dit wax nañu li xew feey loolu je crois que ñu bari xam nañ ko parce que on ne fait que le répéter mhm. mais il faut que ñu xam léegi lan mooy solution yi qu'est-ce qu'il faut faire par exemple lan mooy politique de l'emploi bi li ñu fi jot a def est baax na wala baaxul lan moo ci manqué euh, ñu wax ay chiffres mhm. euh, techniquement Euh, ba euh, ba mu ba mu leer parce que bu ñu waxoon euh, par exemple bu ñu mënoon continuer ba wax ba leeral ana ce qu'il faut faire maintenant xëy na fi ay xalaat sax mën na fi gën ñu ñu ñu teg par exemple parce que man je respecte Chérif que ni. Hmm. président Macky Sall am na lu bari lu mu fi def. mais est-ce que transparence am na ci dans la gestion. sa sàcc yi am détournement de de de d'objectifs yi nga xam ne ah, dafa am. par rapport à certaines décisions qui sont prises du depuis le sommet de l'État. Eh yooyu yëpp. yooyu yëpp bokk na li nga xam ne moom moo moom moo tax affaire yi avancé wul ay yi ngay dégg fii nii yëpp agence yi fi tegu nii yëpp agence yooyu dafa waroon motiver jeunes yi pour ñu mën a dafa waroon waxtaan ak jeunes yi comme elle le dit Sophie pour que ñu mën a ñu mën a ñu mën a ñu mën a am ay décisions yu concrètes et puis a am ay ay ay ay ay ay par rapport ak demande bi nga xam ne moom mooy euh, moo concerne l'employabilité au Sénégal donc mais euh, euh, gars defuñu ko léegi lan mooy problème bi ñu jël ay exemple jël kaawu DER est est-ce que ngi dox normalement est-ce que yooyu moom a gën a intéressé ci waxtaan bi moo may gënal des parce que en réalité on le dit tout temps mm-hmm. mën nañu ci wax très vite mais le fond il faut qu'on te fond boobu loolu loolu loolu loolu laay xaw regretter te Alioune Sow Alioune Sow da ngay xamante ne elle mhm. quatre-vingt-dix ans yow nga nekk jeune tu as trente-cinq ans par exemple nga am diplôme yu doy mais par pas bi ñu bàyyi ko ci poste boobu ba léegi. Euh, mais c'est terrible regarde le cas de la Géroute. c'est le cas de la Géroute c'est c'est boo ma waxee loolu man damay xalaat. ay <laughs> euh, Géroute a monsieur qui a a c'est c'est pareil xam ah, c'est ça qui est terrible. mais loolu sax ay daggatu salaire la mais pour exemple rek il faut prendre des gosses. parce que des fois daal Sénégal da ngay rey ba soxla il faut ñu li ñu soxla il faut ñu il faut ñu euh, ñu ñu li ñu soxla il faut ñu def ko ci suñu réew. Mm-hmm. il faut dañu soxla ceeb il faut ñu fexe ba ceeb bi doy dañu soxla. blé il faut ñu fexe ba blé bi doy. li ñu soxla euh, euh, euh, mais xool. te nañ defee suñu réew dooleel on ne développe pas l'agriculture xoolal terre arabe de d'hectares de terre arabe la ñu mais mais pourquoi on n'agit pas en conséquence bu jaree sax ñu lépp cinquante mille milliards ñëw dóor ko ci réew mi je reste persuadé que ni. en cinq ans on l'aurait remboursé. voilà mi ngi noonu parce qu'on aura mm-hmm. pour rembourser ça surtout qu'on a encore des ressources pétrolières qui sont là xam nga entreprise yi ñu gën leen taxé ñi di jël ñi ñëw di jël yooyu ñu gën leen yokk kii bañ a def ay subventions par exemple ils font des subventions. Mm-hmm. Euh, euh, euh, ci exonération fiscale yi ñuy defal entreprise yi est-ce que chaque année pratiquement entreprise yu mag yëpp dañ leen dindil li ñu leen di dindil ci exonération mhm. fiscale ça tourne autour de milliards de francs CFA moi vous me milliards en 5 ans da ciy am mais ñi di fay impôt ñuy fay impôt normal déclaration ñu leen di ñu kër boo amee kër bu mag man mënuma imaginer nga am kër bu mag man pour man kër boo ko amee étage boo yokk rek da nga la man loolu sama xalaat la. en tout cas euh, Aliou Sow yooyu ay xalaat yoo xam ne loolu nañu ko xalaat yu am solo on sait que état mënul def lépp ñëpp xam nañ parce que am na ñoo xam te ñu euh, ñu a koy xaar ci yu bëree bëri ci santé bi ci transport bi ci éducation ndax y a des yoo xam ne vraiment lajj na sooxe na ci bu baax a baax te quand même loolu responsabilité am la ñu daal di wéyal rek Aliou ci beneen point bi nga xamante ne wàllu quotidien moom la daal di titré à la une attaque contre le candidat de Benno APR premier adversaire de Amadou Ba fan yii yëpp Amadou Ba dafa mel ni comme ni mu ko waxee sànq il est au cœur des débats euh, ginnaaw euh, génnub ki nga xam te moom mooy euh, Souleymane Jules wax ci <laughs> vraiment ay wax yoo xamante ni jamono ji moom la ñëpp di yëy yàbbi maanaam ci taxawaayu Amadou Ba moom jàpp na ne amadu Ba il rassure pas assez vraiment euh, assumé wul boppam ci li nga xam te moom mooy jongante yi ñu euh, fas yéene dëgmal niki le 25 février incha allah Aliou Sow. bon man comme je ñi ko wax. ñaar ñaar principalement deux personnes yi wax lool ci Amadou Ba. te wax boobu gars yi dañ ko doon ngawut ngawte. mais Souleymane moom moo moom moo am fit quand même. waaw moom moo am fit wax ko ci kaw. fit wax ko mais mm-hmm. euh, c'est c'est c'est c'est à moitié vrai. mais c'est à moitié faux aussi et puis qu'on se ah méfie mm-hmm. ah parce que Amadou Ba xam nga politique le fait que ñu tudd ñi lay tudd nii da ngay gën a avancé mm-hmm. léegi Amadou Amadou au moins a réussi une chose avec ses moyens dama xamul ndax ce sont ses moyens intellectuels wala ses moyens financiers en tout cas il a réussi à, à faire parler de lui presque chaque jour hmm. depuis tout le temps depuis un bon moment donc loolu au moins benn euh, euh, réussite la c'est positif ou négatif ba ci benn côté ci mooy am na na am na du positif moo tax ma ne moitié vrai moitié faux am na du positif mais am na du négatif am na du positif parce que au moins on parle de lui parce que boolee nañ ko ci mbir yi am ñoo xam ne léegi loolu il prend euh, euh, euh devait am galon moi je pense ci loolu à tort parce que quand on dit adversaire premier Amadou euh, euh, euh, après premier adversaire de Amadou Ba il faut ngeen xool ñaar ñi ko wax te non seulement dëgg la ci benn côté mais ñi ko wax ñaat ñan lañu awa ba quelqu'un koo xam ne dañ ko dañ ko dañ ko sànni dañ ko sànni à l'étranger. dañ ko frigo. waaw hmm. parce que man pour man Souleymane dañ ko yóbbu frigo biñ ko yóbboo fële génne ko dakaar Macky Sall pour man loolu da ko def parce que. Euh, sans doute voilà il fallait que mu def ko teg ko foofu. d'accord est que fàttaliku ngeen benn affaire euh, Souleymane Jules Diop mooy ki doon wax Macky Sall euh, munoo sax nekk chef de service boo gisee ma leen di fàttali lii maa ko tey ah, parce que dama bëgg Sénégalais des fois di xam je je je wax dëgg yàlla je l'ai fait exprès et je le pour que Sénégalais fàttaliku moo doon ki doon wax ni. Macky mënoo nekk chef de service yow banaan da ngay nekk président de la république man duma ma la wax loolu ah man ba pare un jour di bàyyi nga may nommer man nga may fal. Mhm. je sais pas si vous en souvenez man maa wax yow Théo tekki dara mënoo sax nekk chef de service nga naan da ngay bëgg nekk président Théo nekk président ma ñëw taxaw ci yow tam jox ma responsabilité. <laughs> boo leen jumee ba fal Macky Sall. boo leen jumee ba fal Macky Sall di ngeen xam kii nga xam ne mënul sax nekk chef de service. kooku man loolu su ma ko defee wallahi du ma taxaw sawet naan nga jox ma nga jox ma responsabilité duma ko mën déedéet. Hmm. pourtant Macky Sall ñëw na jël ko gérer mu gere communication au palais. Hmm. jox ko ay responsabilité mu mujjee ko yóbbu fële ca ñu doon gas affaire yeeg yooyu euh, euh, kii boobu agence boobu. xaw ma nu mu tuddati. doon def affaire forage yeeg demee noonu. après mu jël ko génnee ko réew mi yóbbu ko Europe alors que Souleymane Diop normalement Sénégal la waroon gën a mën a. amal am njëriñ. mais sans doute Macky moo xamoon lan moo tax mu def loolu parce que des fois nit dina ñëw jël la ci wetam fekk ni fekk ni dala sib dalay gere rek moo tax mu jox la responsabilité noonu. daa bëgg nga noppi daa bëgg nga noppi rek. waaye moom am na xëy na peut-être lu mu denc par rapport ak li mu mës a dégg nga ko doon wax. et puis peut-être que c'est pour mieux te ridiculiser mais comme yow tu es dans le besoin et que yow da nga soxla aussi une responsabilité parce que ce n'est pas rien d'avoir d'être directeur directeur d'agence wala nga nekk un ministre de la République donc dinaa la ko seexal rek dinaa la contrôler en même temps mais naa la fi téye ba bés ma la soxlawul ci réew ma jël la ma yóbbu la bitim réew def la ambassadeur à l'UNESCO mm-hmm. ba léegi comme téye na ko fa ba mandaam jeex Souleymane Diop a besoin de continuer à exister politiquement mm-hmm. waaye lan lay def ki nga xam ne mag la Macky Sall choisir est laaj ngeen ko ndax mi ngi gis Amadou Ba li mu wax yëpp dëgg la de sur le côté amorphe de Amadou Ba côté bi nga xam ne dafa mel ni ku làqutu ci ginnaaw Macky Sall yooyu yëpp dëgg la mais man loolu kese intéressé dama bëgg ñu ko comme wax nañ ci ba pare wax nañ ci démb wax nañ ci tey il faut ñu wax aussi Souleymane Jules Diop bu ñu jógee ñu wax ci Abdoulaye Bibi Baldé spécialement ñaar ñooñu lu tax ñu wax parce que Souleymane on aurait pu dire qu'il serait frustré parce que bu jegee woon Amadou Ba xëy na du ko wax ci biti waaye ki nga xam ne amadu Ba mooy ki nga xam ne moom la Macky Sall choisir te comme Macky moom la choisir te moom dafa bëgg survivre politiquement forcément xaj na dafa jegewul amadu Ba ba war ko mën a wax mbir mi moom personnellement jàkkaarloog moom wax ko ko parce que ñoom ñoo bokk mbuus ba léegi pourtant defu ko kon on peut se poser des question donte li mu wax lépp lu nit mën a bàyyi xel la parce que gis nañ ko ci Amadou Ba du wax du imposer wu du machin dafa xaw timide il est docile tout peut-être ragal Macky Sall ak yi demee noonu bëggul di ko frustré yooyu dëgg waaye moom tamit bu ko ko waxoon na en face mooy gën waaye est-ce que mën na ko gis est-ce que mën na ko teg bët moom. kon est-ce que il se que mën a gën a wane boppam. Mm-hmm. parce que il il doit pouvoir avoir une survie politique. Mm-hmm. après Macky Sall te bu ñu la boolewul ci groupe bi nii nii après xañ na bu ñuy séddoo bagage yi duñu la ci boole. le réel politique. donc loolu réel politique boobu xañ na da koy def keneen ki. parce que mënoon nañ guddal ci ci euh, Souleymane mais foofu lañu ñuy keneen ki mm-hmm. bii bi Baldé la. Mm-hmm. Bibi waaw Bibi Baldé APR fal ko euh, Kolda. al APR continué waat ko yow lañu bëgg falaat ak benn bokk yaakaar yow la ñu bëgg falaat Kolda pour nga nekkaat maire. Mm-hmm. ndekete Macky Sall mi ngi jàppale. Mame Boye Diao ci suuf. pour mu rendi ko. finalement loolu ko Macky Sall jàppale Mame Boye Diao moo rendi Abdoulaye Bibi Baldé waxatuma la ñu jël ko dàq ko poste. humilier ko joxatuñ ko responsabilité waaw ah, kooku waru leen mën a njort tuuti am na benn côté frustration aussi moom it. Mhm. parce que depuis liggéeyal perte loo nañ ko mairie bi ay mbokkam ñoo ko sot patron moo jàppale ki ko sot ba dàq ko. mais c'est de bonne guerre également. waaw ah, déet mais Macky Sall moom moo avoué mu ne. Mhm. bu doon sax Mambo Diaw mais moom nee na moom moo jàppale Mambo Diaw pour mu daaneel waa ji. Mhm. Macky Sall moo ko wax. mais c'est c'est mais loolu quand mun na moom mënu ci dara te fii rek la amoon occasion pour wax parce que gis na ni nguur mi ngi koy gën a sori. te comme nguur mi ngi koy gën a sori te moom bu aussi dafa bëgg am une survie politique. leen rek la mën a def mooy wax ca teel. parce que xaj na aussi bu gisoon Amadou Ba dina ko ko wax waaye xaj na aussi mënul gis Amadou Ba parce que ñi ngi commencé di ko isole te plus ñu lay isolé plus mbir mi di yàgg plus ñu lay tegee nee te loolu moom bëgg ko kon li dal euh, Souleymane Jules moo dal Abdoulaye Bibi Baldé <laughs> euh, xaw na daal Mame Boye Diao mooy dafa fippu parce que jël nañ beneen xale <laughs> jox ko direction LONASE xale boo xam ne ci ginnaawam la nekkoon moo tax il faut ngeen di comprendre Mame Boye Diao xam nga Sall dimbali na ko am un moment donné parce que comme je dis souvent la politique c'est du circonstanciel de lieu et de temps mm-hmm. lieu bi Kolda la temps boobu moment Mame Boye Diao la woon léegi lieu bi Kolda la ba tey foofu mais temps bi dootul Mambo Diaw mais Mambo Diaw a senti sa ba pare non seulement waa ji mi ngi koy préparé xale bi gis ngeen dañ ko defal jox ko direction l'ONAS d'accord pour gën ko may doole au niveau de Kolda waaye mu jël Mambo Diaw aussi tege ko ne génnee ko ca béréb bi mu ko faloon matul sax ñetti weer. <laughs> muy fan du CDC temps bi ce serait bien 30 secondes pour teew peut-être. bon euh, très daa am nag benn niveau de de frustration. xam nga ndax lan parce que Bibi Baldé moo dalal presque ñëpp APR Kolda. moom dafa jàpp ne toujours c'est leen moom mooy mooy kii nii. tey bu ñu jëlee ki nga xam ne moom moo ko dalal presque. Mhm. genre ki ñuy nommé normalement Abdourahmane Baldé mooy Doura. Doura moom nga xam ne dañu jàppoo ne il avait des lien avec PASTEF autour du mouvement Kolda Debout léegi nag lu ñu nommé noonu day mooy chef si kawam d' autant plus que Mame Boye Diaw isolé wu na moom frustration la comme li Aliou Sow wax. Mm-hmm. dafa frustré moo tax muy muy muy. fippu parce que il a été toujours moom dafa considéré boppam que.